ci liy gën a màndargal atum 2023 ci wàllum koom bokk na ci li di taux de croissance bi FMI ne jóge na ci téeméer boo jël juróomi poñ yu toftal wàcc ba ci téeméer boo jël ñeenti poñ yu toftal lilee yëngu-yëngu yu metti yi fi amoon ci weeru juin am ci wàll ànd ak njëg yu yokk inflation bi jóge ci téeméer boo jël juróomi poñ ba ci téeméer Diom Beni juróom-benni poñ toftal atum 2023 assemblée nationale le budget Sénégal qui Diom benni juni ak ñeenti téeméer ak fukk ak milliard yóbbu ko ba ci juróom-ñaari junni ak ñetti milliards donte fait, jafe amna, conseil d'administration bu FMI rafet njort qui ni Sénégal dit d'orale politique économique ak budgétaire mu waral mu jagleel sunu réew téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñu mën a fàttaliku itam ci 2023 tournée économique yi fi président Macky Sall amaloon ca Kédougou Kaffrine Kaolack ak Fatick ñenn ñi duppee yi lay tournée ay tournée politique ngir dooleel candidat bu benn Bokk Yaakaar ak bilan fukki ak ñaar yi Macky Sall toog ci bopp nguur gi fu ne mu diggee fa ay milliards ngir sukkali koom yooyee diwaan juróom-benni téeméer milliards pour Kédougou ñetti téeméer ak fanweer ñaari milliards pour Kaffrine junni milliards pour Kaolack juróom téeméer ak juróom fukk ak ñetti milliards pour Fatick loolu yëpp ci diiru ñetti at maanaam 2024 ba 2026 lii di campagne agricole bi nguur gi jagleloon ko ab conseil interministériel gouvernement bi jëloon ay ndogal téeméeri milliards yoo xam ne ñaar fukk ak juróom-ñett ya subvention la bu ñu jëmalee ci jiw gi mu mot ñaari yoon fukk ak ñeenti milliards yu daaw subvention boobu tax ba jiw gi nguur gi seddalee toll ci juróom-ñetti fukki junni tonn ci gerte waaye teewul coow li nekkul ndege njëg yi nguur gi fas yéene jëndee kilo gerte gi di juróom fukk producteurs yi ànduñu ci ci mujjanteel gi président Macky Sall ci biir tournée économique bi mu ni woon ñu ubbi marché bi ndax ñu mel ni chinois yi mën a dugg si ak seeni prix. loolu waa Sonacos ak ñëpp ñi yëngu ci wàllu production diwlin ak li ni mel ñaawlu woon waxu Macky Sall boobee. ci 2023 Sénégal dalal forum mondial ci économie sociale et solidaire muy gulet ci Afrique sowu jant liñ ci jublu woon di soppi anam yi noo séddale ko àdduna si. fexe ba néew ji doole gi rawatina jigéen ñi ndaw ñi ak way làggu yi kenn bañ a des ginnaaw 2023 président Macky Sall daloo ñaareelu phase bu plateforme industrielle internationale bu Diamniadio bërëb bi di dalal ay investisseurs ay entreprises ñu séentu ci fukki junni xëy ak ñett pàcc mu njëkk mi Sénégal financé ko ci ñaar fukki milliards boppam ñaareelu pàcc mi réewu Chine financé ko ci juróom fukki milliards ci tënk lile di li ñu mën a jàpp ci atum 2023 ci wàllum koom